footballeur ñëpp xam ko ci wàllum football tey nag ku ne xam na ni moom jullit la ñëwoon na fii ci dëkku Seydil Hadj Malick bi Tiwaawan doon visiter grande mosquée bi chantier bi nga xam ni mooy grande mosquée bu Tiwaawan ñuy doon ñuy tabax juma ju mag di jumaay maam Cheikh Al Hadj nekk fii ci Tiwaawan Paul ba ñëwoon fi nag doon visiter juma ji moom ngeen di gis ci image yi noonu. yéen a ngi gis euh, Serigne Pape Cissé ci wet gi yéen ngi gis tamit Serigne Moustapha Sy bu Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz Dabakh euh, kon mi ngi noonu Paul Pogba daal ñëwoon na tey fii ci Tiwaawoon bu Seydil Hadj Malick Sy doon visité fi nga xam ni moom mooy chance bu jumaay maam Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu والرأي والتدبير والإعلام كل يقول نشيت ما أتيح قيامه Yeah.